question mhm. li fa xew moo xew fa préga muy Dakar muy Thiès muy feneen. mais bi da cee raw. waaw parce que amoon nañu ay problème mais xam nga àdduna xëy na koy sotti benn bis nguur yi fi jaar yëpp muy sangoor Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade surtout wax dëgg yàlla ak mag ko ci am na loo jéem suñu problème principal bokkoon na ci ñaar yi waxuma nag amul yeneen dama ñeneen su ma dëkk tey ñaar yi gën a bokkoon na ci wàllu inondation ak wàllu déplacement. mais te inondation yi c'est quoi qu'on puisse dire depuis 2006 2007 avec le plan Jaxaay plan Jaxaay daal di yi continué ko le plan Tawfekh Yaakaar ba wax dëgg yàlla gis nañu inondation yi mi ngi wàññi ko bu baax a baax a baax a baax léegi bari na. zone xam waaw je suis d'accord. yow Babacar inondation daaw fii foo la fekk. même 2019 wàññeeku na. Ah, parce olof lañu wàññeeku na ak jeex na bokkul. xaw su fekkam par exemple dafa yokk yi. déedéet. Pape maa ngi jiite kuréel bu ñuy wax synergie des acteurs pour l'assainissement de la banlieue yaakaar naa ba ñëw tey banlieue bu fekkoon am na ku ñuy wax inondation lokk nga daf la ñuy woo xam naa ci lu bëri mën naa la carte bon xam ma jeexal ah, da am acquaintance ak pouvoir bi de telle sorte que ba nga xamante ne doo leen wax lépp moom moo xew <laughs> Pape je voudrais je voudrais te préciser que ni Moussa Diakhaté mi ngi toog xam ne au plan politique je ne pouvoir waaw mooy naa ni yow xam nga. soo mais gis nañu ne am na ñoo xam ne dañuy signaler gauche à droite loolu am na aussi bon. <laughs> ayca ñu bàyyi la nga tontu Pape dama wax rek. <laughs> xam nga lii aussi bokk na ci yàq réew bi c'est-à-dire objectif yi dafay ñàkk. ba bu ñu defee lu baax sax ba lu baax la ñu ne aale ah, kii daa ànd ak diw. c'est extrêmement dangereux. c'est-à-dire tey jii dem na même boo nekkee sax société civile wala nga nekk opposant su fekkee ni Moussa Diakhaté parce que LDP la bokk yaakaar posé na acte bu salutaire. ma ni baax ñu ah léegi kii kat daa signalé droite gi daa di gauche mais non nous appelons tous à de l'objectivité de l'objectivisme il nous faut considérer les faits à partir ce qu'ils non pas à ce que man ñi li ñu tax mooy xool lu baax ñu ne baax na lu baaxul ñu ne lii baaxul. d'accord toolu inondation am na ay amélioration yi am néew ma la jeex na ne wàññeeku na ma la wàllu transport par exemple gis naa dañ daa am difficulté yu bare bëri mais léegi mi ngi wàññeekoo mu am lu ci yokkuwaat muy BRT bi nga xam ne ñëw na. lu baax la dina wàññi dina dina dina yombal transport di ko suñu étudiants yi yóbbu ci banlieue di jàng si am nañ d'autres problèmes nag yoo xam ne jeexul d'accord mais nga wax xam naa si dara